ah El Kebe ak maam Ali Thiam ak Elmo ñëw ci Papis Xarañ Lo tey dinañ waxtaanee avant combat bi et après après combat bi nuñ koy dundee ak bu ñu paree lu ñuy waaj waxtaanee ko wax ji jubee nag ñu xam ne suñu borom la bu dëngee ñu xam ne suñu jëmm yi xeebu yii la rafetal moo ci dugaloon. Galaay Taalibe Bambala ak Kebe wax jox sa morom Papis tontu ñu ñu bàyyi ko mu nuyoog suñu mbokk internet bi Papis Xarañ loo ñu ngi lay nuyu. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim Galaye maa ngi lay ziar di wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñuy sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur xam nga euh, di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu 14 Sénégal yëpp di nuyu suñu sëriñ suñu wasila suñu papa suñu xarit maam Thierno Ibrahima Faty Ndaamul Daaru ñu koy ziar. di ko ñaanal wér gudd fan sutura xéwal bu bari. yàlla sàmm ko parce que yàggam fii moom. njëriñ la si ñun daal. waaw man moom li may rek sama papa la quoi. waaye sama papa xam nga. di ko wax ñaan yi egsi na. Mhm. gis nañ taxawaay bi ak waa daara ji yëpp. Mhm. képp kuy taalibi borom daaru rek xam nga. léegi mën naa ne man sax damaa tax xama damaa gën a tax xama ñenn ñu bari ñoo xamante ne xama ay taalibi sëñ bi lañ xama daaw ñoon supporté sax mbër mi xam nga. Mhm. damay tax xama ñu koy supporté xama di ko supporté bokk nga ci ñoom quoi. xam nga waaye même bu xama rek. waaw des fois moom xam nga sot moom dañ naan dompat ci sot la bokk. xam nga waaw xam nga di ko nuyu. waaw avant tout tamit xam nga. di jaale suma suma suma benn xarit. suma mag. suma koo xamante ne mën naa ne moom a yar quoi Moussa Ndiaye. ok waaw Moussa Ndiaye xam nga di ko jaale di ko jaale magu Cheikh Cambérène la xam nga. waaw koy jaale waaw di dégg Mbacke di ko wax. waaw xam nga di ko jaale maire bi di ko jaale waa kër gi di ko jaale waa Cambérène di ko jaale parcelle yëpp. Mhm. ko jaalewaat mbayaar yi ñëpp xam nga parce que moom xaritu ñëpp la woon quoi xam nga di ko ñaanal suufu Tiwaawoon bi yàlla na woyof ci kawam xam nga ak képp koo xamante ni génn na fi àdduna sama maam bu jigéen maa ngi koy ñaanal suuf woyof ci kawam ak Amoura Sarr mi nga xamante ni génn récemment yàggul génn àdduna ñu koy ñaanal moom tamit xam nga ak képp koo xamante ne dëddu na ak ñi nga xam ne caabi feet na leen ginnaaw tëdd ci lal hôpital yàlla suñu borom fëgg seen bopp xam nga ba pare di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa nekkal fii quoi ci parking bi. Mhm. di leen nuyu ñoom ñëpp amul exception. Demba Maysa Medoune ba États-Unis xam nga di nuyu tamit Ousin Diouf. moom tamit xam nga moom sama waay la. Mhm. bon di nuyuwaat comme ni ma koy waxee rek suma xarit. Mhm. suma frère. moom moom mën naa ne xam nga kooku moom man ak moom mooy li wax rek sama frère la quoi Pape Alioune Ndiaye xam nga. l'international bu baax Badou xam nga waaye di nuyu frère am ak seen soxna yi xam nga di nuyu paa bi tamit ak maman Aïcha xam nga di leen nuyu ñoom ñëpp su ma fa jógee waat encore damay nuyuwaat ku ci mel ni suma maman aji la maare suma yaay jigéen ju mën góor xam nga moom moom combat yi moom xam du nelaw xam nga lim siy daj tout xam nga nuyu Dasagana Diop waaye Dasagana ah, di ko félicité di xam ci ndam yi mu jóge mooy marché yi trois marchés yi mu amoon donc. parce que ñoom dañu doon jouer le 24 le 25 ak le 26 jouru combat bi xam nga. Ah, ah. wallaahi. loolu la Sénégal métti na waaye qualification basket yi. mooy cot bi mais alhamdulilah yàlla may na ko ci ñetti ndam. Ah, xam nga teewul mi ngi ci match yi. Mhm. mais xelam yëpp mi ngi ci làmb ji xam nga stressé xam nga. Mhm. mais alhamdulilah du nuyuwaale frère am Codé ak waa kër bi yëpp xam nga. Mhm. su paree ci loolu nag damay nuyu suma xarit. koo xamante ne moom. man li may wax rek l'infatigable laa ko tuddee quoi. kan la Ousmane si si Diasner. yee Sy Diasner moom mooy nit boo xamante ne xam nga nga war a woo nit di ruus wala ngay xalaat pour woo ko. moo ma daal suma diggante ak moom. kooku damay wax képp koo xamante ne Sénégal yëpp laay wax sax ñu ñaanal ko ba pare rawatina képp koo xamante ne yaa ngi bége Modou. ok da nga ko war a ñaanal chaque jour Ousmane si si Diasner <clears throat> ñoom ñëpp. ku ci ne war nga xëy di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax parce que nit la boo xamante ne non kenn la quoi ci Modou isama la du xalaat du xaar xam nga waaye non yàlla na ko yàlla defal jàmm quoi <laughs> li mu bëgg ci palaasam am ak ci réussir xam nga lépp lépp moo ko xam ak ci équipe am bu bees bi xam nga yàlla na ko sunu borom defal defal ko ko ak fameem ay soxnaam ak ay tuut tànkam xam nga sunu borom defal ko jàmm defal leen ko ñoom ñëpp mhm. di nuyu waa tamit Mourou bu baax di nuyu tamit xam nga soppe yi xam nga <laughs> parce que xam nga <laughs> voilà mais nañ dox ba ci wax wax ji yaru na ci ci nuyoo bi waaye dana saf nuyu soppe yi bu baax a baax parce que xam tey li ñuy wax rek man affaire yi daf may sa jëlee kaw billaahi waxatuma la ci réseaux sociaux yi lu mel nan lu mel nan moo lay jëlee kaw en fait ni fi ma nit ñi teg quoi en fait parce que jàpp ma ne sa def naa fi loo xamante ne xam nga mais en fait nit ñi fi ñu ma teg man man dafa dafa sax kawe sama njort yàlla. est-ce que defoo sa bopp benn ñebe ci cin. non non non non wallaahi affaire bi xaw ma lan la. yàlla xam na loolu man xaw ma fu mu nekk xaw ma lan la. sax wastaxfir quran man damay génn. Mhm. saa yi ni ma nit ñi di traité isal ma la mhm. ak réseaux sociaux yi xam nga. Mhm. ni nit ñi def parce que nit dañu bàyyi seen temps joxuma ci kenn mu jënd connexion. xam nga ki ngay dajal muy wax ak yow xam joxoo ko dara xama nga donc ñooñu amuma seen fay quoi di nuyu tamit suma grand bokkum. c'est Salim. ok am tey bu ko mbaay amee xam nga. voilà gis nga lim ciy daj. xam nga di ko ñaanal jàmm ak famem ak njabootam yëpp. ñi des nag nañ ñëw après xam nga voilà parce que tamit vidéo bi dafa xaw a yàgg. gudd ñàkk nag quoi mënul ñàkk parce que xam nga préparation combat dafa metti xam nga surtout bi ñu jógee. dafa metti woon trop xam nga. surtout combat bu ñu ne woon bokkoo ci woon. ñoom waa xam nga ñoom bàyyiwuñ ma benn yoon est-ce nga. voilà donc ñoom xam nañu man xam na est-ce ma la affaire yi du ay mais yàlla nañ yàlla fay seen xol quoi parce que ñun combat yi man bokk man combat man li may am jàpp yaakaaruma ko ci combat man bu nit déggee suma soxla mhm. ci combat Modou la parce que man bu fekkente ne pour man personnellement mhm. lu may jox sama njaboot mhm. wala lu may lekk man dama gëm ne maa koy fayital sama bopp loolu du góor yàlla moom ma koy may wala kenn xam nga man maa koy fayital sama bopp di nuyu tamit Birane Ndour Birane man Birane Ndour men doomu Youssou Ndour waaye di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Birane di ko wax maa ngi koy nuyu bu baax ak paa bi ak famille bi yëpp xam nga di nuyu tamit maam jaara faam maam jaara faam borom Pikine waaye maa koy nuyu bu baax a baax combat bi ut ngeen ci wàllu yu bari daa mel ni yàlla min bi jaaxal na leen ah, tamit xam nga di nuyu waa jàmm gën di nuyu leen ñëpp non di nga ñëw ci loolu di nga ñëw ci loolu d'ailleurs sax dama ko fàtte woon ndax euh, fii ñu sës tey mooy cimetière Yoff yi sama waajur bu góor a ngi fii ñu koy ñaanal ak bépp waajur ak Ablaye Mbaye suma mag ak bépp ku fi nekk rek ñu ngi koy ñaan Papis Diegane li may njëkk a ñëw ci yow ak combat bi mooy dañoo gis ci avant combat bi coow li bari woon xaritu Siteu nga xaritu Modou nga combat bi arrangé wu la moo tax nga làqatu dernier moment nga ñëw fës ci kanamu gars yi bataille psychologique la woon wala lu nit ñi doon wax dafa amoon donte répétition lay doon mais dañoo gis ci biir combat bi jaxasoo bu metti am ba yàgg si ngeen coow ci géew bi ñaari question yooyu. waaw coow boobu mën naa ne coow xam nga coow boobu ci làmb lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi xam nga. mais bii coow personnel la. Papis bokk ci la ñu wax. waaw xam nga moment mu ñëw. yow déggoo ma wax la bokkuma ci. te déggoo Modou ne la Papis bokku ci donc nag foofu coow bi moom xam nga jarul sax ñu ci ñëwaat di ci détail benn affaire bu ndaw la man dama naan ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo féete ci ñun ñoo réeral nit ñi waaye ñenn ñi ñenn ci ñi nga xamante ne dañoo féete si ñun ah. ñoo réeral nit ñi waay parce que boobu leerul de ah. ci ñi bokk ci yéen waay ñoo réeral nit ñi parce que seen biir waaw ci suñu biir parce que ñoom ñoo génne di def ay communication yoo xamante ne teguñu ko fenn isa comprend nga di wax loo xamante ni dara wóoru leen ci. jotuñu papis uh-huh. dégguñu papis. isaan uh-huh. yi dégg uh-huh. te xam naa ne Moodu waxu leen ne leen damaa joteeg papis. isaan ma la donc ñoom dañuy ñëw tey benn journaliste am na journaliste yoo xamante ne. dem yëkkati naroon naa yëkkati sama téléphone woo leen. mais après dañ ma ne bu leen woo si. parce que tey imagine toi nga dem si nit di forcer naan xam nga diw ak diw ba ba dem naan ay xam nga est du diw li diw am combat kii man Siteu bu ma gisee ba bëgg ma. ci sama njàmbar ci Modou la ma gisee ba bëgg ma waaw loolu nag jaaxaloon na nit ñi ko ah dama lay wax rek mhm. maanaam dama ne man man ginnaaw yàlla ak yonent bi lépp lu ma am muy ci suma liggéey muy ci leneen Modou la waaw parce que papis jegaan bi sax duñ ko dégg mais papis xarañ la. fan ndànk rek dama ne ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sumay ñaan waajur lépp lu ma am ci connaissance ba ci sama liggéey bu ma ci amee weccet mën naa ne grâce à Modou la man nit gënumaa xam ne nit gënumaa xam ne ginnaaw yàlla yonent bi lépp lu ma am Modou la dama koy wax suma lépp la na nit ñi bàyyi di diaboliser di diviser pour mieux régner loolu amul sens gis nga fii ñun ñëpp ñoo far gis nga fii lu waaye di am da ngay gëm ne yaa koy liggéeyal sa bopp <laughs> est-ce que may dégg yaa si tontu ma sax non damay bi def benn parenthèse bu ndaw rek parce que xam nga dañu xawoon jaxase xelu sénégalais yi est-ce que ma man amul maanaam dama koy wax mu leer amul mindeef mhm. ak relation bu ma mënta am ak yow mhm. ba ci sunu waa kër laa la wax mhm. buñ doon bëri ak Modou nii ci cadre làmb làmb ci Modou laa àndal donc loolu jarul sax xam nga di polémiquer parce que loolu du débat isal ma laax mhm. nañu tourner parenthèse boobu loolu laa amoon moo ciy wax isal ma laax pare naa ci duma ma ci debaawaat sa jote ak Siteu ci biir géew bi yow la wala moom parce que gis nañu lu mel ni xëccoo am seen diggante waaw man comprendre ma sax man xaw ma sax man daal en day ñëw ma jàpp ne day romb mhm. après voilà noonu mais bon yooyu yëpp ci làmb la bokk quoi. yee man bañuma yooyu quoi. non mais dala ko def def ko Pambay quoi. waaw mais loolu xelam moo toll foofu rek mais bañuma loolu xam nga tuuru lamb moom xam nga des fois gars yi. Mhm. <laughs> mooy loolu mais bon merew ma ko ci jàppalu ma ko ci. dara làmb la rek des fois seen yaram day tàng sama la. donc yow li nga gis mooy ndam rek nga gis boo jàppee ne Papis mi peut-être li muy def nii mën na ma xañ ndam da koy jëlee foofu loolu la rek mais du dara. mais est fit na ci biir géew. non non non non. non non non non non non non non non non non non non non non su ma ci paree ma pare ci ne ci leneen quoi. mais pax ya nga gasoon. pour seen combat bi am dañoo suul ñaari mënuñoo suul yi ci des ndax bari. bu gas bu rëy boobu tamit ak bu ko Siteu gisee day. sax xaw ma <laughs> ma ne ko man bii sax xaw ma xaw man daal ay tegtal li may wax rek làmb moom. lépp lu fu ma dem fu ma yaakaar ba dem fa. ñu jox ma dara ne ma defee ko nii. dinaa ko def. waaw loolu kese la du dara te dinaa ko def def li ma war a def suma ci pare pare naa ci. ok émission bi eh, nagu xew la ko quoi dañ koy séddoo hélas day wax jox la après jox ma ma wax tontu la parce que tey du séddoo hélas lay wax ko bi. ah ba pare tamit xam balaa nga jox hélas xam di profité waal di nuyu waa diaspora bi yëpp. ok la di nuyu diaspora bi yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyi mu fenn rawatina xam nga. moo mhm. demee Italie xam nga. Mhm. di nuyu ku ci mel nii eh, suma suma xarit. Cheikh. Cheikh copain Xaarim Fall ak soxnaam ak ñëpp maa ngi leen di nuyu suma copain Xaarim Fall non am na yoo xam ne. non mais Nicolas yóbbante na ma ci yow te question boobu. waaw maa nga di nuyu tamit suma copain Xaarim Fall xam nga ak Waly Fall xam nga maa ngi leen di nuyu baax a baax xam nga sumay waay lañ ak Cheikh ak soxnaam yëpp ak suma grand Naar Fall waaw Naar Fall moom tamit mi foofu ba Italie xam nga di ko nuyu ak njabootam yëpp yëpp ak sama ñoom ñoom laay xam xarañ xam nga sa mafia bi nekk Italie yëpp ma fa jógee damay dugg Paris damay dugg France xam nga non non si. di nuyu di nuyu di nuyu Nicolas Issa Mbalax di nuyu Nicolas bu baax a baax comme ni nga ko waxee léegi xam nga di nuyu tamit suma copain falaa laa waroon njëgee sax. Faala monsieur Diagne maa ngi koy nuyu dafa def benn choc sax nii nii xam nga bu oh. yàggul dara bu ndaw rek xam nga. di ko ñaanal suñu borom fëgg boppam. may ko wér. xam nga kooku suma xarit la. Issa Mbalax may dem Paris xam nga. tey du lépp waaw moom sax xam nga moom bugul yooyu Issa <laughs> mais suma xarit la di ko nuyu bu baax a baax a baax. xam nga di nuyu frère bi nekk foofu tamit Zal xam nga di nuyu suma suma njaate ji foofu Zakaria ak soxnaam xam nga di nuyu Mara di ñaanal tamit Waly Seck xam nga le setam bi le setam bi suba bi Waly Seck maa ngi ko ciy ñaanal suñu borom defal ko ci réussite total xam nga parce que drapeau Sénégal lay yóbbu xam nga te aussi c'est un frère quoi ko ñaanal réussite total total total totale. di nuyu Mara Baye ñu si leen nuyu ñoom ñëpp. dinañ ñëw ci question di pare hélas looy wax Papis pare question bi ma denc mais gërëmoo Ibou suñu copain sama frère la kooku maa ngi ñëw ci moom. non ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyuwaat rek internetu Sénégal Buzz 221 ak actu buzz yi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel ci disponibilité bi nga xamante ne suñu frère may nañu ko Papis euh, Galaye daa yaa xamti teel a dugg sa diggante ak Siteu ci biir géew bi ah loolu dañ koy nangu waaye dama bëgg a ñëw ak yow tuuti rek ci li nga xamante ni moo di pendant combat bi moment bi nga xamante ni làmb ji taxaw na mu def face à benn ñaar ñaareel bi xam nañ ne Papis nekk fi naka nga doon dundee coow yooyu Papis ak moo xuloon nañ Papis Siteu moo tax mu bëgg a yàq digganteem ak Modou pour jaay Modou ci làmb ji polémique yooyu nga ko doon dund ci réew mi naka ko doon dundee. en tant waaw ci polémique yooyu laay profité di masawu samay xarit. samay xarit laa la wax samay xarit. wallahi comme ñu kiy wax ñoom Ifal ñoom Issa ak samay frère Bamba ñoom bàmba ak fameem ak sama famille xam nga sama famille quoi di leen masaw ak samay xarit. parce que tey ak sama yaay maa ngi koy masaw bu baax a baax parce que xam nga ay TikTok ñëpp a nekk ci réseau réseau yi xam nga te tey bu yi amee da leen di métti quoi xam nga man mii di wax yow fekkuma fi mais bon des fois di nga seetaan nga gis ñu wax ay waxu nit des fois di nga seetaan gis ñoo xamante ne en fait dañ lay bett sax quoi mhm. isan ma lax bon da ngay xam yooyu yëpp danga nga ciy am jàngat rek xam ne àdduna moo demee ni man bu dee man kese man dama koy gérer man aw ma problème man moom garaawul man damay gérer yooyu parce que mais sama famille ci ginnaaw laay xalaat ak yooyu isama la pour ñu bañ ko mën a gérer ba tax na ak samay xarit dama leen di woo des fois xama naan leen nii ak ni ak nii des fois ma gis si kenn dugal statut sax xama am nu mu kiyee ma woo la ne la garaawul booy ah amul solo fii tey boo nekkee ci dëkk ci àdduna sax laay wax nga nga nga nga nga nga bouger fenn rek ñetti nit di wax ci yow rek wax la alhamdulilah quoi xamal ne ñu ngi lay bàyyi xel quoi peut-être. Mm. man foofu rek laa ko teg te lu am damay jàpp ne suñu la xam nga baal naa ñëpp. Mm-hmm. baal naa ñëpp wallahi te ku ma tooñ tamit na nga ma baal ak mm. après voilà c'est pas la fin du monde quoi. Mm. yee da nga ciy rek gisee gisee ne sa ànd ak Modou dafa am ñu neexul. non ànd yëpp la nag sama ànd ak yow sax dina am ñu mu neex am ñu mu neexul mais xam nga lan moo am solo ci ànd. ki ngay àndal xam yaay kan. jox la sa valeur isan la man saay duma ànd ak nit pour ànd ak nii nii nii rek Modou nee naa la sama frère la man Modou su ma neexee. ma mere ko. yoonu kenn nekku ci. su ko neexee mu mere ma bu ñu waree wax kenn du ko fekkee loolu yoonu kenn nekku ci yoonu kenn ku ci am sa grain de sel booy sànni téye ko pour yow. parce que sa diggante ak Modou lijjantiwuma ko te xam naa ne ñu bëri lijjantiwuñ ko kon bu lijjanti sama diggante ak Modou man ak Modou suñu neexee ñu rayante mu jaar ni dem ma jaar dem. kenn du ñu jubóole kenn. bi coow li bare ba ngeen jàkkaarloo lan ngeen waxtaan. non Modou balaa may ñëw wax nañ téléphone man ak moom wax nañ téléphone ba mel ni waaye yow doo ma bàyyi yow man ak Modou déggoo li ma la mën nañu réeroo. isaan ma la que loolu mooy ànd bu dëggu man ànduma ak Modou pour di ànd ak moom vingt ans yoo xamante ne musuñu musuñu discuter defuma loolu. damay ànd ak moom te yàlla tax ànd ak moom ànd bu dëggu moom muy ànd ak man ànd bu dëggu. su ma wàccee yoon mu woo ma ne ma wàcc nga yoon man aussi pareil parce que nekkatuñu ay xale mën man tey man mën naa nekk yow nga mag ma mais am na âge bu ñuy toll ay mag dootu fa am parce que ñëpp ay kilifa lañ quoi fii xale nekkatu fi mhm. seen ay dégg fii ay magum jëmm ñoo fi nekk mhm. xam nga ku ci yor sa grain de sel wala sa wax booy wax nga denc ko pour yow wala nga yóbbu ko pour seen kër mais sama digganteeg Modou xajaluma ci kenn te bi problème bi bi ñuy wax ay problème dafa am ak boobu yëpp maanaam xajaluma ci kenn ak lu mënta xew sama diggante ak Modou amul amul ku la ci mën a wax woo na ma ma waxul lii wala lii. amul mais bokk seen biir ñoo doon dëggal problème bi. waaw léegi loolu ñoom la parce que ñoom déggoo li ma la wax peut-être am na leneen lu ñuy séntu man séntu ma dara. te <laughs> El Hadj dafa mel ni day waxee dënn. non waxee wu ma dënn sax tey waxee wu ma dënn sax. waaw man damay xool mais El Hadj dama cee am man mii sax dama cee am benn discours boo xamante ne dama ko cee defoon. daanaka mun naa ni xaw naa cee dégg sax naa la duma quoi. mooy Papis ak Modou ñu nekk ci seen biir te mënuñu leen supporter te lool bi ma koy wax juste am naa ci ay preuve yoo xam parce que Papis bi mu jógee France moo doo ko jëli image yi mu ngeeg man acte fii laa ko defee woon fa laa ko waxee woon te su ma juumul ci guddi yooyu déggante nañu moom mi ma naar naar yaa ngi mais ci biir loolu mu dëggal léegi ne dafa am seen biir ñoo xam ne neexu leen wax ji dëggalaat na ko mais dama cee gis beneen soo ci fi nga laal góom a dox quoi du ma leen ma digoon nag laa doon bañ moo soo ko yëgee ne da ngay ànd ak galaay donte sama ànd ak Modou neexu ko mais mënu ma koo bàyyi di jàpp nit koo xamante ne da nga koy def sa bopp te mënoo koo bàyyi dund boobu nan lay mel. ah man de du ma def noonu man. waaw kon donc xaw ma loolu nu mu mel parce que man melu ma noonu parce que man hypocrite ma man moom ku ma xam-xam na ne gala yow su ak yow non moo li nga xamante ni moo di face to face yi amoon communication bi nga xamante ni gis nañ si te communiqué ko gis nañ aussi moo du communiqué ko ba ñu yegg si le jour ji di 24 bëri bi demee nii lamb ji ni mu demee bett na la wala xaaroon nga ko. bon benn instant bettu ma nag quoi franchement parce que xalaatu ma ne moom dina taxaw guerre ak Modou quoi. waaw hmm? hmm? mosuma ko xalaat nag wax dëgg yàlla. waaw ni ko xamee. waaw mosuma xalaat waaw mosuma ko xalaat wallaahi. fan nga teg ni kii du taxaw ak guerre ak Modou. waaw parce que dafa am ñoo xamante ne dafa ñemewul Modou. wala da du jël ay responsabilités wala wax ji rek la am ci làmb ci. non dama xamoon ne du taxaw di geer ak moo di xeex ak Modou rek mm. xamoon ne du mës taxaw di xeex ak saay Modou góor gu dëgër la Modou góor dëgg la wallaahi tey xam nga mën na neex nii nii xama nga ku ne di wax nii rek mais bu defee suuf sa tànk yi moom saay Modou kenn du ko ko wax quoi. Ah, ah, kon daal ko ci wër ko ci wër yi wax ak moom. yomb na mais pas bu arbitre tëjee jéem ah, mais yéen c' est pas la première fois ngeen gis combat Modou xool leen ñaata nit la fi signatural ak ñaata nit la ñoo signature ñëw wax li mu def dem leen ngeen xool ko. mais ma naar naar yaa ngi tax gëmoo ko woon ci Siteu lu tax gëmoo ko woon ci Siteu ci ni mu bëree dernier combat mi la ci défaite yi mu jige la wala ci lan nga taxoon ne kii du songu moodu bay xeexak ak moom. parce que xam naa ne dàqul mu amul amul xeex bu mën a duma Modou. amul bëre boo xamante ne gëm na ne mën na ñëw jàpp Modou daan ko ëpp ko Modou quoi am na xeex bi am na bëre bi mais ëppul moodu xeex ëppul lu bëre bu war a tax di te ñëw ne dafiy jëlee Modou loolu rek la foofu rek laa ko teg sama sama sama analyse bu ko quoi man yee. kon lan ngay tontu ñu naan Siteu lii mu am ndam la ci moom. non waa ñooñu mooy ñi faral Siteu loolu kay laa yaakaar xanaa. bëri ko wax ñoo xamante ne sax ay communicateur lañ leen ci lamb mais dañoo ne lii ndam la. ku mel ni moodu nga am defet bi ci moom non ba pare yóbbu ko ñett yoon ardo maa ngi dégg ñuy wax boobu ba léegi hmm. ay non Modou kii moo ko njëkk a yóbbu ardo non Modou bu dee ci ginnaaw saako yi Eumeu Sène ko njëkk a yóbbu ci ginnaaw saako yi dem leen ngeen xoolaat combat yi ku ko gaañ ci ginnaaw saako yi nga ko gaañee hmm. waaw dem leen ngeen xoolaat image yi mais loolu gàllaaj la wala mun xeex ku ko gaañ ci ginnaaw saako yi non la première Eumeu Sène moom Modou bi ñuy bi ñuy kii ci ginnaaw saako yi la ko dóoree Modou fa la njëkkee dem ardo bu ñu jaawale Modou fa la njëkkee dem Ardo nekkul fii la njëkkee dem Ardo dem leen xoolaat image bu baax foofu la Modou njëkkee dem Ardo ama seen dóor ko ci ginnaaw saako yi ñu pare ñoom ñaar ñu ànd dem ci Ardo naa ni meew hmm. eh. ñu pare ñu pare ñu ñëwaat <laughs> esseulement la hmm. bi ñu ñëwaatee eh. muy contre cité bi hmm. ci ginnaaw saako yi la ñëpp nañ ko jarul sax ñu ciy débat esseulement la ginnaaw saako yi la après moo dem ñu faj ko léegi nag fi Modou dag nii fi mu dag nii fii la dag fii fii la dagg-dagg bu sew nii ah mais sa waay nag def leen dang xam ngeen ne fii deret bi day génn la ma waral boxeurs yi balaa ñuy boxe ñuy diw seen fii pour bañ fi toj parce que xam nañ ne fii deret bi du taxaw quoi mais nekkul dañoo nit moo jàpp Modou yóbbu ko ñetti yoon ar non non non même blessé loolu non loolu jarul wax sax loolu kay yéen gisal ngeen ko seen bopp. mais yaa nga fa yaa ñu ko gënoon jege. waay mais gisal ngeen ko seen bopp loolu kay jarul wax sax. Mhm. wax nga ko sànq ci biir géew bi gis nañ action bi ndox ci digganteem ak Siteu gis nañ action bi dox ci diggante Siteu ak Pape mbay mais Papis action bu mel noonu dafa amoon ci diggante Modou loo Eumeu Sène nga rag rag gu métti biir Siteu ñu gis mu sedd. gaynoo bi la xarito bi la lan la. wala dayoo bi lan la. waaw di masaw waale Pambay bu baax di ko nuyu di nuyu As Baro xam nga Lato ak staff bi yëpp quoi. Mm. maa ngi leen di nuyu parce que xam gis naa coono yi ñu daj. Mm. si yi ngi bon du loolu de en fait léegi dama mën naa ne comme koo xamante ne lu xew man bu dara amee su ma ñëwee taxaw at sax ñu ne man la. mais ma lay wax waaw bii dañ laa bu max pabis deful. peut te tey bii ngeen bëgg a gis man Modou Boy Niang bi sax laa la wax. ci biir géew bi nit fekk na ma fi may def li may def mu boo bëmax ma ba saaga ma ma romb ko parce que xam naa ne du ma dóor xam naa ne du ma dóor donc koo xamante ne chaque jour bu yàlla defee mbooloo bi li muy bëri bëri bëri balaa ñuy dem chaque jour Modou dinaa la ne sawaay lii ak lii ak lii isan ma la non damay fexe nag tenir samay promesse quoi waaye du ma bëgg xama waaye du ma bëgg xama ñu ne ma lii imagine toi combat boo xamante ne ay li ci des matul cinq minutes mbëri sax seen temps jeex Siteu def ma loolu ma jàppante fa ak moom Modou force da ciy dugg man xam naa ne suma ma moom foofu Modou da ciy dugg léegi moo dugg ci ñee tëb dugg ñii tëb dugg làmb ji dégénéré kan la ñuy wax moo ko yàq ah mais loolu la moo ko fi jar des fois xam nga faa ngay xalaat quoi léegi dama ne tollatuma foo xamante ne xam nga damay ñëw di telli telli telli di dem xam nga dem ak sama xel xam nga voilà te làmb ñi ko organisé parcelle lañ xam nga bugguma dara lu ñaaw jóge suma côté quoi kon da nga dindi da nga dundi deretu xale bi léegi yor deretu mag non pas deretu mag sant ne non mais gis nga gauche droite ak moom lu waaw mais xam nga boobu boobu dañoo soxla ji boobu dañoo soxla koron bi waa parcelle ah. toog di ñu xaar ñu am ci lu ñu jógee jour boobu noonu maanaam bakkan mooy des ci bi mais ndam day ñëw dafa am ay bis yoo xam ne noonu lay mel est-ce que kon Siteu loolu la bëggoon fayee ko. non non non non non ma clôturer fii nii rek jox la. parce que sànq wax na ko boo tudd ki nga xamante ni moo di combat Eumeu Sène moo njëkk a yóbbu Modou Lo Ardo. bi lamb Modou ak Siteu jeexee ñu jël ko ITV dégg ay kàddoom yi nga xamante ne yëkkati na ko fan yi nag mu def coow tuuti ci tour réseaux sociaux yi ginnaaw kàddu laay goote yi nga xamante ne Eumeu indiwaat na ko di ko dëggal ci ñàkk a mën a bëri Modou ci waaw ni mu demee. coow lu jógee Thiès dugg Pikine kan ma wax Mourou mënul bëre. Eumeu Sène. Ah, Eumeu waxul leel de. Eumeu Eumeu loolu la Eumeu yaaxu loolu. wax mooy dëgg. mooy dëgg te laay moo ko wax Thiès. non ñooñu moom ñooñu moom du ma leen sax tontu quoi. non non du leen tontu. parce que ñoom am na loo xamante ne man dama naan su dèjà soxor la rek quoi. ci parce que soxor la. dèjà su ma juumul ñoom ñoom fi njëkk am mbër mu ñëw ñu naan ko da nga nduróog Modou bugg ko te nduróo rek lañ ko wax dangeen ngeen nduróo. waaw moo daan tam waaw tudduma tur. non moo daan tam. la mu ne bëgguma ko ci nduróo rek gàllaay fii bu la neexee nga ne maa yow duñ loolu dara nekku ci donc bu fekkente ne kër googu noonu. la liy jógewaat. loolu duñu bett duñu metti da ngay xam ne tey <laughs> voilà ku sañoon mel ni Modou. <laughs> isaan ma la ñun Modou lañu bëgg moom la ñu tiiteroo. ok mais quant lii moom gëw ma ne sawaay moo ko wax de. mais euh, non Eumeu Sène. lañ ko maanaam tey Eumeu moo dëggalaat euh, wax mooy dëgg Modou mënta mais booy wax bëri na Eumeu kay xanaa mais mais jegaan fan ne non non Eumeu waxul loolu non xanaa sañ ñoo kereel Eumeu Sène nag Eumeu moo ne non Eumeu mënu maa gëm loolu maanaam man man mënu maa gëm loolu <laughs> waaw lu tax mënoo gëm loolu. waaw parce que ma galaay daal ne Papis Diegane ma wax. non mënu ma ko gëm. parce que xam naa ne du taxaw ne Modou mënul bëre. non non Eumeu du wax loolu non non. mais Diegane xanaa ñun ay noppi leneen la ñu yor. non non xam nga ñoom maa ngi leen di nuyoo parce que dégg naa ñu ne ñoom Eumeu Sène moo fi dàq bëre. ah waaw léegi mooy li ñuy wax Sénégal rek ngay gis ku jël paie ñu naan des bi mën a daw. Eumeu Sène moo mën a moo fi dàq bëre. waaw mais Eumeu kan moo ko defaral ñaari yoon mu baal ma nag ah. Modou moo ko daan ñaari yoon. waaw ah, non Eumeu Sène wax Modou mënul bëre waxul loolu jàll ci leneen waaye. mais Papis lu tax mënoo gëm liñ lay wax ko gis. te déggu ko. Eumeu Sène moo tax mënoo ko gëm. Hmm? lan moo tax gëm-gëm bi yow nga ko sa bopp. non dama xam ne Eumeu Sène waxul loolu rek. Eumeu Sène waxul loolu Eumeu wax loolu. Hmm, ko wax. léegi bu loo loo ko. non ba ma dis Eumeu Sène. wax na ko kay wax na xam nga. non non non man waxul loolu Hmm? bi laa wax loolu nañ jàll ci dégg loolu mu ne li booy bi wax mooy dëgg lu tax mënoo gëm loolu tañ wax la ko wala ñun suñu wax doy la man li booy bi wax mooy rek du ma ci focus bàyyi leen ba ëma seen non non ba ëma seen taxawee ne boobaa dinaa was tontu loolu moom mais nii nii nii nii <laughs> non mënu maa gëm ne ëma seen kon Papis dëgg ëma seen waxul woo ko mais ñun nga seen ëma seen loolu billaay jàll ci leneen ëma waxul loolu ok ay xarit ngeen wala. ma boo <laughs> non non xarit non. Ah, jàmm la ñu seex isa ma lax comme nii làmb rek xam nga. aw ma ma xaw ma ma bu weesoo làmb musuñu daje fenn musuñu toog xam nga. ñu bokk seen camp ñu bëri génn naqar lu wax ji ëmma seen wax gis bëri na. non mais am na non waaw léegi. loolu Papis yow dama ne mais dama man mënu maa gëm loolu laa la wax. Eumeu Sène sañul wax loolu waxul loolu ah. waaye nag ma <laughs> gëm naa ko mais Eumeu waxul loolu nga laay baax waaye. si Eumeu Sène. dañuy laaj boo xamante ni par rapport ak lamb bi la. Mhm. gars mhm. mhm. parce que yow seen fils man du ma fiisu kenn loolu el moo ko wax de waa jàmm gën na yow seen fils nga dama ne hmm. kenn du ma booyu kenn hmm. loolu lañ fii la bokk suñu man duma ma fiisu kenn laa la wax wala déggoo li ma la wax xam nga du ma doomu kenn du ma fiisu kenn duma ma booyu kenn essaye ay dégg hmm. ku may ànd damay ànd ak yow nawle da ngay ànd ku may àndal damay ànd ak yow ànd nawle pimpim <laughs> maa ngi koy nuyoo basaab musuma ko gis bu weesoo nii ci vidéo yi musuma ko gis xam ay kàcc non nii man man kër Siteu benn yoon laa fa mës a dem muy dëju fóode dañu fóode laa mos a dem kër Cité relation yëpp. déggoo li ma moom Modou Mbaye ay xarit ngeen. waaw ah, dama lay wax ma ne man. kër ah. benn yoon laa fa mos a dem muy daju daju fóode. Mhm. di leen ko jaalaat bu baax di nuyu waa Diamaguène yëpp xam nga xam nga mais li ñu gisante bari na xam nga tey peut xam nga comme moom li muy ñëw côté bi moo ëpp est-ce que comprendre nga. ñëw côté bi ne comme Cité lu mu doon ñëw côté bi moo ëpp xam ñuy bokk nag xama di ñu ñëw ñu nekk des fois sama gàlle wala ñu nekk xama gàlle Modou Mbaye xama wala affaire yooyu xama yeah mais bon mosuñu toog sax jotaay boo xamante ne man ak Siteu ñu ay xaritam yu bari da ciy nekk noonu lu ci ëpp du bari quoi ay frère lay doon ay Dumbuya ak Fodé la doon doon xam nga voilà du bëri bëri boobu quoi xam nga. bi làmb ji jeexee déggante nga ak Siteu. non Siteu non non non déggante wu dëgg yàlla non dara dégganteeguñu. Hmm? làmb ji dafa dégganteeguñ après làmb ji dafa yàq relation bi amoon wala. non man làmb ji mënul yàq sama relation kenn wala déggoo li ma la sama relation nit ak nit. du ay làmb moo koy yàq te bu koy yàq du jógee ci man. mais Papis euh, ma kii foofu jox la nga ñëw ndax euh, làmb ji tamit bëri na coow dem nañ ba dégg ay nitu làmb taxaw ne Modou dañu ko war sot ngir mu perte roi bi déggit ñu ne làmb yëpp dañoo àndoon bëgg Modou Lo ñàkk roi bi lamb ji sentir nga ci sot wala sentir nga ci ki nga xamante ne mooy Modou ñu xaw ko laal ci mystique parce que ñu bëri tamit am nañ gis-gis boobu wala ñu jàng loolu ci lamb ji weesu. Hmm, non gëwuma loolu man hmm, Modou kenn du ko jàpp ci mystique. ah hmm? Modou kenn du waaw mais fii moom yàlla moo fi nekk. xam nga yow mën nga am sa bëgg-bëgg rek liñ naan yàlla na nga dee taxul nga dee yal na nga gudd fan taxul nga gudd fan xam nga ñoom nag dañuy am seen bëgg-bëgg li ñenn ñi dañuy bëgg moodu daanu ñenn ñi bëgg moodu daan te dama jàpp ne ñi bëgg moodu daan moo ëpp man li ma jàpp ñi bëgg moodu daan moo ëpp quoi man li ma jàpp parce que nit ku nekk moom dangay ngay da am njort bu rafet rek man li ma jàpp mooy ñi bëgg moodu daan moo ëpp quoi non non non non mais nee nañ ko dafa diis waaw. dañuy rek. Modou doo ko gis mu appaat Modou doo ko gis mu appaat. non mais gis nañ mu def signe boo xamante ne. non ma wax la benn affaire sa loxo ci diggam ma wax la benn na blessure boo xamante ne. wallaahi ñu mu doonoon dinañ reporter combat bi. ci ban combat. combat bii. ba pare Modou bi ñu arbitre bi sifflé vite fait Modou tànkam ci suuf dafa xar kenn xamul lu ko xar foofu ci géew bi. tànk Modou Lo dafa xar ci géew bi. man maay wax ak yow. non mais attends mais géew bi tànk Modou dafa xar. ci biir géew bi Modou baaraamam bu mag bi. tànk suuf dafa xar. dafa indaale stade wala ci biir stade bi la. waaye ci biir géew bi kay jeexal na wax. waaw noo ko xotti weñ la dafa am lu mu dëgg. parce que ci suuf la nekkoon xam nga li lay wan jàmbaar gi bu nekkee rek bi loolu amee bi tànk bi xaree. Mhm. waxu ko signalé ko bokkul ak blessure am ok am na beneen blessure bi ngeen waaw ba pare bi làmb ji jeexee ba ñuy dem pour def antidopage bi. dama summi samay dàll jox ko pour mu sol quoi ma jox ko mu ne ma non mënu ma sol dàll bi man ne ko lu tax mu ne ma tànk bi dafa xar ma ne ko xar. mu ne ma waaw mais Papis dagg de xar nga wax xar. waaw déglu rek ma xool ma gis ko. ma lax après ci lañ demee ñu dugg ci biir fi ñuy defee antidopage bi man maa dugg ak moom. ak ménagère bi kese ñun ñett ñoo dugg kese ñu dugg parce que policiers dañ ne kenn du dugg bi ñu duggee nag bi ñu ko commencé di xool médecin wu CNG bi ci boppam nee na ko carrément ne ko xam nga xam affaire bi après bi ñu <laughs> ñii ay lakkal lañ. barke yàlla ñii doon rek. ñii ay lakkal lañ xam nga. <laughs> mais garaaw après ñu ci lañ duggee ci biir noonu. médecin bi CNG bi ci boobu nee na ko carrément man gis naa ko mais comme signalé woo ko xam nga te comme ci suuf la te signalé woo ko du ma la ci wax dara kon xam nga ne li ma wax lu leer ba pare terewul gis ngeen ni mu bëree wallaahi maanaam booy wër góor jàmbaar nit koo xam ne du lekk ak mm. hmm? nit ku gëm boppam. mooy Modou. mais loolu gars yi ba bu ñu ko déggee dina jege ñaaleem nga moo tax. non non non loo xam ne combat bi jeex na ma wax ko ñun ñoo am ndam bu doon dañ ñu daan sax waa ñun ñoo daan ñoo am ndam ñu am lépp may expliquer loolu kay amul sax ay. mais lu jékki-jékki xar. indaale woo ko ba pare ngeen ne mbër mi laalu ñu ko misik ta laal giir géew bi ay xottu butéel amu fa. gis nga yaram nu mu kiiwee lu la ci jam bu la yombaatee sax nga yëg ko. affaire yi am kii nga gérer ko normal ba làmb ji jeex te neewoo un encore ah mais kooku jàmbaar la waaye. tàccu leen ko waaye parce que foofu dara nekk fa non non non mais lu ne la suul ci suuf nga ne la waaw la mooy musique yow tànk bu dagg nga naan musique yow gars lu ne la ñuy def ci suuf di. wallaahi naa si. ah loolu lépp noonu xam na loolu. te attaques yi am yëpp gis nañu moo doo mooy mooy attaqué muy bëree mooy daan. ok mhm. ok. waaw waaw non dinañ ñëw. waaw <laughs> dégg nañu seen wax hmm. loolu lañ leen wax loolu lañ leen wax. tey lañ fii lan nga fiy gis muy mala. di ñëw boo yarul te jógewul nii. nit ñi nañu bàyyi jaxase. gis nga saa tubaab. Hmm. mille personnes ñu ngi ci Modou. ah deminam moo gën seen demin fuuf. domaine Sa Touba. waay nañu bàyyi soxor. te xam ne ñi nekk ci Modou yëpp ndam lañu ñu yéene bien vrai que ku nekk ak ni mu ñëwee xët-xët bu mu mënta ñëwee. dalal ko rek te nga xam ne ndam moo koy indi. dama fii mala bu ñëw nii nga jógee muy bu Sa Touba ak bu keneen ak keneen a yem. Seras lay jóge wala foora wala mu jóge ci àll bi mala bu ñëw nii la jógee nañ arrêté détail yooyu loolu du làmb ñun ki ñu nekka lutteur la gëmul sax détail yooyu nañu bàyyi jaxase yi ak diviser yi. dafa bis tey daa mel na la trop non non sax du loolu sax non damaa xam ne ay wax ay saatubaa gileemam bi moo lii saatubaa coono bi mu daj bay indi fa gileem kan moo xam saatubaa dina coono gileem ni mu méttee dina jëli gileem indi ko pour naturel nii pour indi nii rek pour nii nii nii nii waay nañu arrêté waay <laughs> waaw Elhadj Elhadj avant ngay ñëwaat ma ñëw ci Papis parce que instant bi ginnaaw bi làmb ji jàllee coow li bari na trop trop trop mais Papis combat bu toll ni combat Siteu te ngeen wax ni du ngeen ñaan revanche du ngeen may revanche xale yi ngeen di may sens Sénégal yëpp taxaw ni benn xale fi des muy Sa bala Balla Gaye ne war naa am ñaari wax yooyu. ah man moom mooy li may wax rek man moom je là pour Modou ku mu jël ànd naa ci ak moom is ay dégg pour Kanta Sa Thiès man su ko Modou suñ doon wax ni Modou pour kii dama ko naan mu jël ko fi ñu toll nii Modou Sa Thiès ak Tapha ñoo fi dese comme adversaire quoi. tudd nga nag ñëpp ah, dañ leen dul <laughs> ragal te moom bokk na si ñu ko a a yomba daan bon ah, dama ne waaw loolu noonu suñu mbiru bopp la ñaari adversaires yi ñoo fi dese Tapha ak Sa xam nga Sa Thiès même burul dara man aw ma ci choix Sa Thiès même dara xam nga tey non aw ma ci choix aw ma choix parce que bëréew ma donc même burul dara Sa Thiès xam nga ñëpp gis nañ performance yi mu def xam nga man moom xam nga dama am yéene ci moom nag quoi franchement mais pas yéene pour mu daan ñu xam nga mais dama am yéene ci moom quoi. maanaam boo doon dogal nii tey. Eh. combat bi ñu joxe muy jóge ci sa dogal. Sa Thiès nga koy jox. du ma jox de du ma jox sax. non maanaam dama ne comme exemple bi doon joxe tey quoi. non kon su boobaa damay choisir kon ci ñaari adversaires yi. mais dama ne moom loolu sama yéene personnel bu ma am la ci moom. ok si yaa ngi dégg. combat mag Eumeu Sène bi dem naa ba sat moom laa si moom laa doon ñaanal parce que ñaari ginaar sax bu ñuy xeex xam nga di nga ñaan yàlla xam nga. waaw parce que loolu yërmande la quoi mais du dara du dara. non non non loolu Eumeu Sène mënul nekk sama xol loolu maa ngi koy soog a wax nii. mais maanaam loolu yërmande la quoi. des di nga gis ñaar ñi xam nga. peut-être ak boo nekkee ndaw xam nga nga yéene kii nii wala dara xam ma la. mais du question de dara wala nii. man benn mbër rek laa bëgg. man benn mbër kese laa bëgg. jarul wax xam barki alxuraan. mën naa support mën naa faral kenn nii pour faral ko nii nii rek man benn mbër kese laa bëgg. ok xaar na balaa ngay romb la ko moo koy fàtte Papis daa wax lu am solo da nga ne moom moo ne woon Tapha Tine a gën a yomb daan mu ne seeni mbiri bopp la mais ci biir loolu non dama gis tey papis ci wax boobu mu ñun ma Moussa ñi nga ba ci physique am nii daa mujjee jël Moussa ci gàllaaj nga parce que eh, yàlla tere yàlla tere ah yàlla tere di ko nuyuwaale tamit au suñu papa jooju xam nga mais da ngeen duróo nii nag rasay xaamam ah, non yàlla tere non buy papis sax xam maa ngi koy nuyuwaale père Moussa ñi ngi suñu papa la bu baax allah di ko ñaanal jàmm fi mu nekk tafaatin mbiru lan la ba nga loolu yëfu loolu suñu yëf bopp la parce que damaa xam rek ah. foofu rek laa fa du fenn mais pas ay mystique wala dara non. man ah, tegu ma foofu yéen. Euh, seetlu naa sànq. li ko Siteu buuxee. dafa wax ak moom. doon wax. fàtte naa ko sax. <laughs> dama bëgg man dama bëgg li jënd ay détails. Papis lan naa ko sama làmb la moom ci bi ngay wax li ngay wax bare mooy loolu. Hmm? fàtte naa ko sax. da dem si Modou ne ko fajal ma lim ma def wala da nga ko ne ko kii boo ko jàppee bu ko yërëm. Modou xam na li mu a def du ngaaga. beneen mooy El laa gis nga kaas. 16 Modou Lo ban. gars yi dañ fàtte 16 Modou Eumeu Sène dañ Modou la euh, Ama dañ fàtte 16 ci stade bi laa jëlee 16 ñolu dara. bii nag jëlee nga ko. bii waa ci stade bi bii. ci stade bi la amaatee chaise wallaahi. Euh, ah chaise bi indi wala ko mais stade bi la ñuy wutee chaise rek bu Modou di toog. garaaw ñun ay sportif la ñu problème. suñu niveau léegi dépassé na foofu. <laughs> mais ci ci un an. jëlal jëlal ci un an. ci un ci un an Papis ngeen teg koron bi trois fois risque boobu ci lan ngeen ko teg. non kii risque rien à boo dul risque doo am eh, live lépp risque la ñun te ñun loolu moo ñu gënal ren saison bi bu ñu mën a amaatee trois combats dañuy jël sax. luy loolu ah oui bàyyi fan. Ah. Modou da muy bàyyi Modou xale la yow. day meg mani ba ci kanam incha allah. Tapha Tine waaye ku ñëw baax na. ku ñëw baax na. waaw ah, parce que tamit ñenn ci seen staff sax toog na ak ñoom ñu ne ñoom bi ñu doon tànn Balla Gaye la ñuy jël. parce que li leen gën a métti seen àdduna bokk na ñaari jëfatu ñu jëlee ci Balla te bëgg nañ balaa ñoo génn ci làmb ji moo di fajal leen ko. waaw loolu ñoom loolu loolu ñoom seen bëgg-bëgg la ñuy wax loolu loolu ñoom seen bëgg-bëgg la mais man daal li ma intéressé mooy maa ngi ci ginnaaw Modou. ku mu jël ma ànd ak moom man Modou rek moo ma ñor. bëgg nga mu bëriwaat ak Balla li ma la wax aw ma choix ci ki mu war a bëreel. mais ndax ndax ndax buñ la ko waxee ni moo fi na la. déggoo li ma la wax aw ma pour ci ki Modou a bëreel. Modou moom naa yëg ne waxuma la bëre naa yëg ne mu ngi ci dara rek incha allah ñu ànd ci ñu wax ci ñu ànd ci. ñu dem dóor ko mu daanu ñu nekk ci leneen. man foofu laa nekk quoi. waaw lamb Modou dafay gën di yomb wala day gën di métti. non bon. day gën di metti quoi. Ah, ndax la. Mhm. parce que xam nga moom bu noon yokkoo rek bu so soppee yokkoo rek noonu yokku. waaw lool la rek mais du dara. mais yàlla moo fi ne ba mystique bi la wala ci côté yëpp lay métti parce que tey moom booy bëreeg Modou xam nga même bu dul dara rek yow bu ñu la nee Modou deful dara sax di nga ne non Papis mi ngi def dara wala Serigne Cissé ñoom Masil la xam nga. waaw ñoom sëñ moor ñoom Satouba xam nga waaw xam nga Serigne Ndiaye. mais xam nga ak Babacar Cissé ah. maa ngi leen di nuyu Babacar Cissé Mor Cissé xam nga. Mm. xam nga Ibu Diop dafa am ay nit yoo xamante ne xam nga mm-hmm. voilà dañuy ak képp koo xamante ne yaa ngi ñaanal moodu man ma fay teg sama tànk mu ci quatorze région Sénégal yëpp fépp fépp fépp fépp man maa ngi lay nuyu di la wax jërëjëf